la ilaha illallah يا اللي ويا أكيم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم تسليما اللهم رب العالمين وكف كل سر بأقي الحمد لله رب العالمين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 séentum weer yàggees na ko fee waxtaane yàgg nañ koo dégg mu ci bis yi nga bu ko gën a màgg amut ci kaw suuf bokk ci bis yi nga xam ni fanweeri yi di dëgmal ci kanam wala ñaar ko bis ak bu ci gën a màgg ci la bokk ndax ci koor gi la ndax ndigal a fii Tuubaa tax loolu nañ ko dugg ci loolu noonu ko sëriñ ñoo waxe léegi ci sëriñ Mbàkke Faal ñu tudde ko bis bi te mu jaadu te mu tudde ko Maam Mor Jaara borom magi mag mu yar ko te sëñ planee loo yor ak tukkiim jikkoom ngay yor kon sëñ Mbàkke Faal jikkooy sëñ Mor Jaara la yor waaye jikkooy sëñ a Faal bi nga xam moom la ko tuddee moom naa bari jaloore bi Sëriñ Tuubaa laajee sondar yi diggante 39 40 ak 14 18 ak 14 18 ak 39 40 diggante boobu sondar yi dem sëñ Fallou Fall taaw mu tedd ba jiite sondar ya ànd ko rakkam ci sëñ Bassirou Fall mu mag moom soo laa wajaxati mi ñu tuddi sëñ Bassirou mii lakk xew gaal ba lu rëy lu bari doole la ca xaar ja boobu sëñ Fallou Fall moo jiite quartier am na fa juróom-ñetti fan yoo xëy gaal gi demut yëgguñu suuf kenn tëddut kenn nelawut te daa wax ba noppi tubaab bi nii c'est pas possible <coughs> sëñ Fallou ne ko c'est possible mu ne ñuy si kat juróom-ñetti fan lekk ñu naanu. góor ñuul bopp bi jaaxle nit ñu ne la ko jox tey nit seen tànk yi fa mu dëjul seen kawar yi fa mu laal gone jotiwu fa nañ wax ki leen fi indi ndax dégg ñu nopp seen nopp yi dégg ñu bànda ku fi indi ñu doon yónnee Cheikh Rafal Ndiarène mu ne wàcce leen seen seen nitu tay ñoo ne tension Cheikh Rafal yi wàcce leen seen aal bi ñu wàccee aal ji gars yi door a mën a yëngu booba sëñ am na si karkat boo xam ne daa yor lu yor lu ne góomu tànk bu taxawee ak góom bi naaj. mu ne ko mooy bu bu seen looy ñoom di sikar ñii ñuy gaajoo di wëndeelu. waa ñoo ko sos sëñ Moussa ko sos. ne ko ba yow ma cappalar. sa tànk boobu noonu lañ ko xoobee wurus. yow ko xool ma góor la waay dëgg la waay dëgg la góor. jëy si mm. ñu suubu mm-hmm. mm-hmm. li ko jeexal mooy mm-hmm. soxna Debo Sarr. baayam mu jibi sal ndey moo mujj solo ci soldaar yi quatorze dix-huit trente-neuf quarante moo mujj fital guerre bi jee ñu bëtt gaal gi kenn amatul jaar ñu gaal gi day diig serfal toom jaaree xool ci penk ba yàgg mu mel ne lu gëcceen ci gëmeen sëgg siggi ni yaram may mu ni faal Masamba Njaay mu ni faal Ibra Ngoone mu ni faal hmm. Njaay Roxaya mu ni faal Babacar Loo mu ni faal Mamay Loo mu ni faal

capitaine gaal bi. mu lisul ba rëslu ci kaw sees bi mu toog buy wala nit. Mhm. dañ ma dem yéen ñu ngi jàmm faal mu ne ah ni ngeen doom dem gànnaar ma nga ci gën maa ndaw mu salaat. ñetti téeméeri dërëm ak fanweer ak ñett def ko ba muy yetti yoon. Mhm. ñu ëmb ko. Mhm. yëg ko sëñ Tuubaa ñaare. suñ kaa xool xaalis bu rëdd kalima bi. xaalis bi séddaloo ñett si bàcc. mu ne ko lu xaalis bi wax. mu ne ko suñ kaa seero suñ tool seero faal ndax day laaxal wala addee lay jox am dañoo bënti ndaw leen ko yow wax lu def yow teel a ba mu ko Ibra Faal dañuy sama doom yee doomi yàlla yi bu ñu la. doomi yàlla yi mooy tërbi yi. doomi boppam yi muy suñ faal faal suñ bëtiru faal. waaye jàngalee ngeen teere sa gaal ga. fekk suñu Bàmba ca kanam muy woo ba mu ci ginnaaw di tuus. at moo mën a sëñ at moo mën a sëñ Tuubaa liggéey. waaw dëgg la waay waaw góor waaw góor. at moo mën a sëñ Tuubaa bind sa virtu amaan. Eh, dëgg la waay. gaal gi bëtt. bàyyi bu du béyee saa suñu rëccoon Samba Naar daan ni ko faal gaal gi dina diig te ne maa ngi fan seera faal bu Samba di laaxan sëñ Bassirou Fall mi ñu tudd suñu bët alxuraan ni ko. Serapal mooy sàmm bi nga xëy di wàññi yorot. Mhm. du mhm. du laaxal. Mhm. an leen ak xel mu dal te yokku seen pëstéeg. seen jaam dina ci li ko war wetu sang bay booy ne leen ci li ngeen neen. dëgg la suñ Fall ko bas mu ko Mbàkke Fall mu ko gaal di ko yuuxi muy daa foog test ni dëpp ko ci gaal gi. gaal gi sépp demut ñu nga ci gaal gi ba mu set. mu ni mu ni muur bee saa mu ni faal yëpp tuut sax ma naaru mu ni faal mu ni ko jox ma naanu gi naanu a tuxu. mu jox ko gën a gi mu ne jox ma tarmus bi def café gi ñu jox ko tarmus bi def café gi. sëñ bi su faal gajam ko gaal gi toj wadd mu toqal benn toq kër ci digg gaf ci digg ci digg gën gi gën gi mel ni biir kër. bàyyi mu du bee saa yëpp tuut sax ma naaru yuuxu. ni ko suppi kaa ala sawala loolu digg mën na ko. waaw ah dëgg la waay ah waaw waaw. ca takkusaan a Fall jox ñu leen gaal nga teere na laf kenn du at at yàlla. waaw sëñ Mbacke Fall tool tool ah Mbacke sëñ Mbacke Fall laay dëgg la waay. sëñ Mbacke Fall toog Mbacke. Mhm. yéen mbir loolu. dégg secret boobu. Mhm. dégg ni gaal gi tukki tukki. Mhm. dégg ni gaal gi warag waragee. dégg ni alif bi dawee. mu ne ah sama du tedd jee di sëñ Fall Fall. ginnaaw nee na dem na ci quartier bi. sëñ taa jullee leen. ni ku fa des mooy ku fa des dem àjjana. ku ñibbi si mooy sa bénéfice. sëñ Fallou nee keneen du la gën a. su ma ñëwee keneen koo xay taa ko man gën ko mu di ma jullee. benn yoon lañ may jullee mu fàttu moom mut si taam Alaaji Malik. sëñ Mbacke Fall toog ñaar tooy Mbacke njëriñ. ni Basiru Fall Basiru Fall mi nga xëy. moo moo sakk bët bënu gi. dinaa ko tuddi doom. dinaa ko tuddi doom. taa bi judd si saa biige man Saliou Fall yónnee ne ko sama turandoo ngoog ñëwaguma àdduna mun ko tudd naa la kaa bi teg suñ bisul Fall alxuraan ah, waaw war naa moom kër gi dëgg la waay war naa moom kii guddi mm-hmm. war naa moom bëccëg yi dañ yàgg naa doon jëwriñ dëgg la moom teew nañ suñ mu dominta bis bi nga xëy bu baax woon dañu bis bu baax mm-hmm. muy fukki fan ak juróom-ñaar ci gàmmu mm-hmm. lu mat juróom-ñaari nit ñëw sukk fi moom ne ko bis boobu dañu bëgg a màggal mm-hmm. mu ni soog génn mm-hmm. moom suñu mu dëbint mm-hmm. boo bis bu baax noonu benn bis bu ku leen ko wan noonu ko bàyyi Mor Ndiaye tomb deel ak Mor Ndiaye dàng muy dem leen ca Bachir Fall Alxuraan ci gàttal def naa ko muy jëw yi kon bu amee bis bi bis sam jaadu la. Mhm. moo jiite bee bis. Mhm. tey moom lañ jagleel bis bii. ndax mooy sëñ Mbacke Fall. ndax sëñ Mbacke man ne dañuy ci kaas bu séddee dëkk li ci capteur bu dee nax ci lañ ko xelee. dëgg la kon sëñ Cheikh Cokkee ak rakam ak sëñ Mbacke ak sëñ Mbacke Fall ak rakam. Mhm. ñooy ñooy Cheikh Fall. sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue nii toog mooy Cheikh Fall mooy Moussa Fall. ndax moo fi teewul sëñ Cheikh jëm. dëgg la dëgg la waaw. dégg nga si ko laa sëñ bi la ñu tax a tudd. moo ko tudd te daa wax ni li nga xëy ku ko wax bokk ci jullit yi ku ko waxul bokkutoo ci jullit yi kooku mooy ismul kabir mooy laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ku ko waxatul bokkoo ci ci jullit yi ku lay wax kenn mun laa génne ci jullit yi laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha illallah faal laa ilaha illallah allahu laa ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله كيس الرفال لا إله إلا الله جميل سيد مدبيتو داري صح دائرة بي تدكو دائرة شكر الله مام سيرايا فال نخلي مام سيرايا فال نيولون أدن سارا في موجي ني مولي ني تكي فوكي فانا جيلوم نيار تيوير كورلا جيسي سين توبا تيالا بدار جيار ñaar fukki fan ya mooy njébal ga ñaar fukki fan yee njébal ga Serapal. dégg naa léegi ku ni moo jëkk a ci saa yi at baatin lan waaw dañ moo jëkk a ci saa yi léegi laa ko ci rajo bi. waaye moo jëkk a ci baatin nit nag. Ah, waaw kon nangu ak ko gànt. dëgg la waay. ndax suñu jaamoon yi jaamu naa yàlla juróom-ñaar fukki junni mbooloo ñoo sama la tay ñu fi bu ñu ñëwaat mhm. te maag Cheikh ko ànd ah, waaw muy may di muy càmmeñ mhm. kon mu dëkk jibul ci batti mhm. Cheikh Rafal ne ba yàlla Adama ba abal basal stocké ci roo yi jàll juur ci kawam ñëpp di mas mu tëm leen ni ala sudrabikum ne bu neexal seen coono mu wuyu mbaa mu wuyu loolu waaye suñu jënd ni jël mu ni Balla. ñu ko loolu see wuyu mu ni aslamtu nafsi ak alastu bi rabbikum ñoo kii daa moom alastu bi rabbikum man maa moom aslamtu nafsi maa moom ruuy. laa ilaaha illallaah. waaw Sër Fall wax. ñu ne ko ci mu ko teg mun suñu taatu koo bind xanaa déggu leen arab. moo tax mu ne Baye Ndiaye rek su ma làkkatee arab na nga ko tekki ndax samay arab daa jàng. waaw waaw. loolu sax na dégg. <laughs> صلي وسلم من على من قد بابل باب البلاء يوم على أولا قبل سوية تكلم بكو سين تاني في يوم يرف إبني أدلا تنبت آرما أبو البطر تتبو يرزو لاي تعالى شفا نفرا مفك أوكي نفرا مفك ñu ko sa doom yi lu دومي mu ne sama doom yi jaasi laan mar ma ah, waaw koo ci jàpp jàpp ma koo ci wet wet yi gama ñu ngi teel sëñ muy jàngat ku bit nuyu jàngat ku ku ma fi bamba fi sëñ Bamba ku fi ba sëñ Bamba ba ma fi waaw tey seex yi koo suñ tubaab la bay waaw nangu naa de koo dégg mu xeeb tali suñ tubaab moo gën a xeeb ku doon suñ tam moo dajee maa ngi ci Mbàkke hmm. ni saa bokk yi muy lim sama taal ñoom doo may sama alal sama talibé moy mooy leen sa bokk yi man dong la ñu am man dong la ñu am te ala lay faj bu la borom ala yi suñ toog suñ toog tuutul ba alal di toog te suñ toog alal yi alal yi suñ toog àddina alaxira mooy taalibe yi te Seera Faal ci jëkk mo ci mujj bi soor bi xewé bi gëna suñ tuba ñu bëkk ñoo la toru nit ndax bi suñ mbacké Anta nelewé dañ bu ma dul nit doon mbacké mbàkkante bi ma dul nit dama jël si ci nit ñi doonu mbàkkaata a dee su ma doonu ndax duma nit ku dul dee su ko miraas am de déggu leen ma ku dul nit kenn du ko miraas ne tubaab nit dëgg la waaw bi ñu miraas doom soxna yi raay seeni téere Cheikh Fall daaw suñu Moussa Fall ak rakkam ñu mhm. seetlu ku ma jël maag saay doom yii ak saay taalibe alal suñu tànnoo ci jëkk miraas mi gàtt kooku du nit kooku du nit ak wax dëgg bu dul woon sëñ Tuubaa laa ne Sénégal gii Afrique ñëppay tëdd sawar kenn mënu fee jaamu yàlla waaw ah, kenn ku fii jaamu yàlla yàlla ni waaw am fi Cheikh Fall nee gars yi tëx nañu yàlla loolu ñu ana ñu waxtaane hmm. dafa ko luudu waxtaan duñu waxtaan bi ma ko bu yaawee moom kenn moomul kenn mbaa ko moom nit jaas yi nga génn mbaa fital mbaa fit mbaa bàyyi hmm. ku danga dee ñu moom la ku ma ñett ku ma ñu moom la la déedéet bi Cheikh Fall ñëwee moo indi jàmm ci ah. weer wi bu dël hmm? nan ko fonk li ñuy fonkee koor gi. ndax waa am lu sariya da nga wax ne soo mënta woor am ngeen. soo woor ba ngoon. ñiy woor peeseel ñaari kilo ceeb wala dugub. ak liibar jox ko ñuy waar jox ko ñuy waar wala nga peese ñaari kilo yu dugub ñeenti kilo yu bu dee ceeb ngay peese ñaari kilo yu ceeb ak liibar jox ko ñuy waar borom Tuubaa nag moo digal sa rafaal togg ndogu fukki fan la ak juróom-ñeent ci weer ah ñaari fukki fan ak juróom-ñeent ci weer barax yi maa ngi daje ci péncum Njaaréem ñu weeri feeñ ñi ñii di feeñ ñi ñii di feeñ ñi ñaar fukk baat juróom-ñett sax comme ni ñu woor ñu woor tey dana démb la feeñ te feeñ xëy démb feeñ tey suñu bilaa nee mbiru ma ko ci Tuuba waaw léegi ñaar fukk fan ak juróom-ñeent borom taw woo ko bu ñëw mun ko Ibra Faal damay am gan suba certainement mu ñuy mu ñuy toggee ab añ ci gan gi waaye mu ñuy toggee reer ndax gan gi du du añ du ndékki Cheikh Fall ñëw sëgg si gi ñu weeree moom néew mu cee njëg ndax borom basira mën naa gis lu ne waaye leeral fa maytu bëti bu la gis ko ndax moom ci ñaareelu asamaan suñ bàmb ni demeen añi te reer weeru fii ñu te ngoon la ko ni demal demal toggal ma ndogu bu tuba weer wi day feeñ gan gi du añ du ndékki waaye day reer Cheikh Fall ca wax ne ku ci def sa tànk ma sa gétub sawara dugal ko a loolu mooy bis bi